de l'unité de la paix li tax ñu woté ko dañu dégg rek consigne son excellence monsieur le président de la république Na président li mu ñu sante moy ñu and bokk nday bokk bay té yaakar na ne parti bi ñu tuddé APR responsable la fi xawma bu mag la xawma bu ndaw la way responsable la fi té comme responsable la fi nak

joxante nañu loxo xamal a loo nekk maa ngi ci maag samay mbooloo loo duggul itam duñu saf maag samay mbooloo yaakaar naa ne bu ñu gisee alliance fii Kaolack gis monsieur Mouhamed Ndiaye Rahmat taxaw Awa Gaye taxaw ca wetam Maniru lii taxaw ca wetam Mimi Touré yónnee na fi une délégation Moussa Fall Aprodel mi ngi fii Pape Demba bi mi ngi fii Euh, Idrissa Tall mi ngi fi tous les maires du département ñu ngi fi sama sœur Nafissatou Diop yone na fi délégation may laaj kan moo des Kaolack ku des Kaolack Kaolack kenn desu fi ñëpp a ngi nii kon Mouhamed na sa xel dal bu loolu passé nak dañuy sante son excellence monsieur le président de la république ndax ba mu jëlee réew mi ñu ngi tollu ci juroom ñetti at ren te juróom-ñetti at yooyu ñun gis nañ Saalum ba muy jël réew mi ni mbéyum gerte mi meloon dangay jaay sa gerte at ñu jox la bon impayé nga ciy daw bay bëgg a dee kenn du la fay sa xaalis léegi nag président Macky Sall ba mu ñëwee non seulement kilo gerte gi daf ko téye yokkatul boo amee ñeent fukk ak juróom ñeent fukk ñeent nga jaay sa kilo gerte waaye dafa ubbi marché bi chinois yi ñëw béykat yi di jaay seen gerte ba 300 francs kon loolu lu am solo la waaye nag ni ko Youssou Ndour di waxee ku bëgg lii bëgg la ca des c'est vrai que boobu am na ay inconvénients c'est vrai que mesure boobu am na ay inconvénients inconvénient bi ñu ngi solidaire avec les usines de Kaolack comme Sonacos comme Copéol ak yeneen usines yi di wax ne honorable député mooy wax ak yéen te incha allahu rabbi bu ñu ko fekkee fii ak déwén dinañu def tout pour que ñu gën a encadrer chinois yi boobu chinois yi mën a ñëw jënd béykat yi jaay seen gerte waaye aussi huiliers yi aussi am lu ñu mën a defaree huile. ci unité bii nga xam ne moo ñu dajale fii tey ñu di ko dox di ko wax di ko jëfee pour mu feeñ ci kanam yi nit ñëpp mooy ànd ñun ñëpp tànk tànk. di jàppale président Macky Sall ci biir région bi loolu moo ñu dajale fii tey dajewuñ fii pour Paul ni Jean ni Kumba ni Fatou dajee ñun ñëpp ci keppaaru président Macky Sall moo ñu dajale fii tey du leneen loolu nag dama yaakaar na ñun ñëpp loolu mooy suñu wareef pour ñu nekk ci dama wax léegi ci presse bi ci ginnaaw avant may ñëw fii ma ne nañ leen jàppalante ngir ki nekk suñ kanam ni mu ko waxuma sax partem waaye ni muy boosoo ci biir coalition bi dama koy toll toujours di wax ne boo xoolee coalition bi sax la gën a mën a bàyyi xel ci parti loolu mooy ouverture nañu fexe ñu roy ko ci loolu nañ leen fexe ñu jàppalante dimbalante ñu yërëmante ci ñi tanante mais ma ñu yéenante jàmm parce que yàlla noppi na démb tey soogu ñëw sa frère bii gën a si la tey war ngaa xam ne du ku ñu xëpp wala ku ñu jiital dégg du muy xëpp wala ku ñuy jiital am nga frère boo xam ne incha allah moment bu taxawee bu jot pour ñu assumer na nga xam ne danañ nekk pour sa dimbal ci lépp loo xam ne yaa ngi ci man du ma àndal ku ma ànd rek danañ xam ne ànd naa yow nga def nii tey nga def nii tey ma ne ñu ngi lay sant la gërëm waaye da nga xam ne lebal nga ñu mën a fay fépp foo xam ne dañ faa war a taxaw pour jàppale la incha allah jàppal na ña nga ci sa kanam ñu ngi ci sa ñun duñu reculer ñun kenn mënuñoo tiital wala nga xoqatal ñu maa ngi lay félicité bu baax di la wax na nekkal ci loolu képp koo xam ne daal natt nga ko ba daj ne liggéeyal ki Sall muy man ak muy keneen ku mën a doon jox ko la loolu mooy sa ndax parti bi di APR ko ci gan ca do ci ngan santé da nga falal basang bu baax ba tok ba pan tek la fa kon man nga mën roti rooti daagu ca boo jëlee sa paan danaa la wutal teeñ da nga mën dem tol da nga mën dem teen da nga mën dem ci def inshallah ma ngi lay féliciter di la wax ne yow ak mboolem jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir région bi di liggéey man képp kuy liggéeyal président Macky sal muy guddi muy bëccëg jàppal ne lépp loo nekk rek mën nga maa yëkkati lépp loo dugit mën nga ma caa dugal lépp combat boo dugit mën naa taxaw pour ñu dem raay maa ngi lay félicité di la ñaanal yàlla ndam yim la doon may ci parti bi gannaaw jotaay bi yàlla na yàlla may la ndam yu ko ëpp fuuf te yàlla mën na ko yàlla mooy def lu ko soob yal na yàlla dimbale la di encouragé bu baax nag sama rakk ji moom it di la félicité di la wax na waaw góor tayaloo ragaloo ca gëm nga li ngay def yaa ngi liggéey président Macky sàll bu baax a baax a baax a baax a baax di gërëmaat di sant suma mbokki maire yi département bi ak mbooleem femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kaw la yëpp commencé ko ci commune bii nga xam na fi laa yeewoo ba dugg ci département bi yëpp bàyyiwuma kenn